jërë ngeen jëf mbokk Wassare Lamb Wassare TV ñoo ngi leen di nuy bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñoom ngi fii ci Kër Massar Saalu jon Sina seet ki nga xamante ni mooy doole Dollé Kara Dollé nag yéen ñi nga xamante ni yéen a scotché si Wassare Lamb miin ngeen ko te xam ngeen ko waaye tey dafa nekk bés boo xamante ni comme niñ ko defalee ki nga xamante ni mooy Père Diaw noonu ñëw noonu lañ ñëwee defal ko ki nga xamante ni mooy Kara doole ndax euh, nit koo gis ku nekk bu nekkee si nit rek dafa am loo xamante ni war nga koo jëflante moom wala dafa am loo xamante ni war ngeen muy dox sa diggante yow ak moom ndax ñun ak moom dafa am kóllëre boo xam ne dafa dox suñu diggante. ba tax na tey nag ñu seet si ko andil ko ndogo yi nga xamante ni nii euh, gaa tuuti na sax waaye rëy na ci moom ñun xeeb nañ ko lool. tey nag ñu seet ko mu baalo àq euh, ñi nga xamante ni ñooy mbër yi baalu ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi ñu doog a continuer wéyal waxtaan wi Kara nuyu naa la. waaw Baye Fall bi ñu ngi lay fay ginnaaw bi sant yàlla ak yeneen ñu ngi sant suñuy ñaari waajur xam nga di sant sunu sëriñ sëriñ Touba di ko sant bu wér a wér ndax bu ñu demee am bu ñu demee ba am jàmm ba toog rek yaakaar naa ne am na si part responsabilité bu rëy rëy bu jigee foofu dañuy xaw a jàdd kajoor rek ñëw ba cees jàdd dem Tiwaawan siyaare Sidi Alaaji Malick ñu ñaan yàlla mu taaxiñ su keram bu jigee foofu dañuy xaw a tourné mel waat ku jëm tuuba bu ñëwee ba côté Bawal jàdd rek dem Canaba siyaare leen siyaare Serigne Canaba bi bu paree foofu jàdd dem Ndiassane ndax man tamit du ma la nëbb suma waa sama suma famille maam ñëpp ay xaadar lañ mu leen di nuyu bu baax a baax bu paree dem si yi nuyu suma mbokku tukulóor yi di nuyu Thierno Samassa ak Cheikhou Bassirou di bu baax a baax a baax bu jigee foofu xam nga ne bu demee bay wooree Dakar muy sedd di neex ñu ngi am brise bii dañ koy sante maam li maamu laay yoof ñu xam ne am na si part responsabilité bu mag a mag a mag a woon géej waaw mu randu lu yaato yaatoo yaatu. ñu féex xam nga ne ndeysaan balaa ngay xam ne géej balaa ngay xam ne géej a neex wala ngay xam ne ndakaaro neex nga bàyyi ba woor ba deux heures nga dem jam ñaajo rombal ma jam ñaajo cinq centimètres rek nga xam ne maam li maamu laay liggéey na buñ paree nag dañoo ne janub l'islam dem ci suñu mbokk chrétien yi gis nañ ci weeru koor gi liñ ci liggéey. ah ndax tamit bu leen neexoon ñu ne sunu koor koor nañ ko ba pare waaye ñoom dañoo ñëw woor seen woor ba pare ñëw teral ñu di def ay koor yu baax yoo xam ne dëkk bi kenn mënu kaa xaaj catholique beeg musulman bi lépp benn lañ ndax catholique bi buy ñaan li muy ñaan ci yàlla la ko jëm yàlla dégg na anglais dégg na français dégg na séeréer dégg bambara dégg saraxule kon sant nañ ñëpp di ñaan Sénégal jàmm. ñu ngi ñaan tant que président Macky Sall moom la fi yàlla teg a ah, ñu koy ñaanal jàmm ndax euh, ki nekk Walfadjri euh, Pape Aline nee na boo yéegee ci gaal maanaam bëgg mu mucc da ngay ñaanal gaal gi mucc waaye mënoo yéeg si gaal ba pare xam nu mu ko waxee di ñaan gaal gi pëtëx loolu musiba la suñu paree ñu ñaanal opposant yi ndax ñoom ñëpp nguur gi la xëccoo waaye tamit dañu naan xëccoo ku nekk na ko defee anam bu rafet rek ba jot ko. ndax lépp boo yow loo lebale rek lañu lay fay buñ paree ñu wax jeunesse bi ñu xam ne jeunesse bi ñooy dooni mag ëllëg ñu ngi leen di séntu si jaamu yàlla séntu leen si présentable ba nga xam ne bu ëllëgee suñuy doom bu ñëwee aw si mu rafet. bu njëgee foofu dem université ma leen di ñaan a tant seen lutteur ndax bu dee benn nit xam naa ne am naa fa rak bu fay jàngee wala doom ma leen di xamal ne leen mbër mu nekk président dina jafee gis dëkk bi. xeebu ma la xaw xeebu suñu bopp nag mën naa ami waa université ñoo war a doon njiitu réew ñoo doon suñu ministre ñoo nekk ñi ñuy faj ëllëg ñoo ñuy gérer suñu ambassade kon bu ñu fa nekkee dugal ci ay affaire politique yooyu noonu ba ba ba ba seen jàng dafay metti buñ paree nag may jaale Wally Seck Papa Thione ndax wax dëgg yàlla ak yeneen bi Papa Thione njëkkewul puso bi rek mu mujjee si loxoom sant na ñëpp. gërëm ñëpp di sant waa Mbëbës sant waa Géejawaay di sant ñi ma àndal su may copain su xarit ñoom Laay Njaay Xaadim Gey Duudu Daawdo Silla Yirim di sant John Sina mi ma teral si saal bi comprendre sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp sant naa waa Géejawaay sant suma doomu nday Mamoor Koddu Ami Kole Mam Booy yaay Fall Tik Tik suma yaay sama jabar neexa a dëkkal mami Fatim Sarr nuyu naa ñëpp lu waxtaan bi gën a daw rek nag Eh. mais yaakaar naa ne nuyoo bi tey am na taalibe de. dafa dafa yaatu sax. mais mais mais nuyoo bi. alaay ah, mais nuyoo bi nuyoo bi taalibe. mais mbër ak koor naka ngeen ni naka ngeen adopté wu ak koor mais mbër nit la comme nit la comme ñëpp dañoo juddu. fekk suñuy yaay di woor suñuy baay di woor. mbër métier la comme journaliste ak koor comme mécanicien ak koor. yéen ni ngeen ni ngeen di lekkee maanaam macha allah moo tax ma lay laaj. non tey laa lay xamal nag ni bi di lekkee teer bi di lekkee la mbër mi di lekkee gis nga nañ bàyyi lekk gu bëri ñu ne mbër nga mbër bu fii topp gars yi chaque jour ma la koy wax nag. koo gis ñu naan mbër mi day lekk mu lekk lekk lekk su jugee ne dañ maa yónni topp ko wala mu ne maa ngi dem entraînement topp ko muy jaade di wëcc biir lu ci xajul boo ko si defee day génn. dañuy woor bu baax a baax a baax buñ ñu paree dem entraînement su ma gars yi taal seen oto ñu ànd wax dëgg yàlla ak yéen dem entraînement wuti doole dañuy woor bu baax ndax ay musulman lañ. mais boo woowee ba noppi ba heure jot. kaa lan lan lay njëkk lan lay gën a bëgg. dogee ba noppi. man nag suma ma ndogoo wax dëgg yàlla ak bi su ma jabar maa ngi koy nuyu su séeri daf may mere. ndax day def bernde yëpp man heure ndogu jot man damay nelaw ba ba ay côté dix heures yooyu ma yeew yow chaque jour ak may woo su ma yeewoo génn xama lijjanti def su may julleeg affaire yooyu noonu tëddaat su ma tëddee ba ndokk di waaju jot dinaa dem si Baye Fall yi naan fa cinq kaasu café dooru dugg suñu kër man damay naan café su ma ndogoo nii bu ma ndogoo ba pare wax dëgg yàlla ak yéen bi reer amatuma soxla subaati ndax damay. ah ginnaaw ngay lekk. waaw wax dëgg yàlla ak yéen bi nag wax dëgg yàlla ak yéen bi ku nekk ak ñoom John Sina. barki dem daf ma jox ginaar yu bëri jox ma xaalis bëri mu ngi nii man du wax du ma wax lu amul su may copain ñu ngi nii ñoom Laye Ndiaye Khadim Gueye borom Dubaay borom Turquie borom France ma nekk su may ñoom papa imposé ñoom Tamaro Seydi Seydi Abdoulaye Daouda Diallo ministre finance ku nekk ñoom doo xiif ñii mënu maa nekk ñoom dina mu dara barki maam Cheikh Ibrahima Fall oto bu gis oto bi ñu ma yóbbu entraînement ba koor gi dajoo ba tey chaque jour ñoo ma yóbbu entraînement waaw may lekk bu baax nag waaye tamit pas lekk bu bon ndax koor da ngay profité pour mais mais entraînement yi ak koor gi est-ce que dina yomb. waaw man moom nag man moom nag dof laa man su ma suuree rek du ma entraînement waaye bu ma xiifee wax dëgg yàlla ak yéen tamit yow gis nga ne géej nga ma fekk ma dawi te ba ngay ñëw gis nga damaa dawi longue distance laa dawi ji woon. gaa nag mënuñoo entraînement bu baax boo xoolee poids bi ñor bëri na waaye boo ma xoolee nga xam ne ñàkkuma doole ndax gis nga li ma buux te si weeri koor lañ nekk luur laa buux ku ñàkk doole du ko ku ñàkk doole du ko def gaa nag dañoo war a maintien waaye tamit faaw ñu ne quoi yeah. tey wasaare seet la andil la ay bernde yoo xamante ni ay meew yoo xamante ni moom bu heure doog jotee di nga di nga ko mën a jëfandikoo noo gisee lool waaw xam nga lii am naa ko lii mën naa see jënd trente waaye teraanga du tuut xam nga lii nii nga ma jox boo leen ko calculer ba calculer bari waaye mënumaa yóbbu Maroc xam nga li matul paasu Maroc waaye suba boo leen nekkoon Maroc woo ma dinaa jël suma paas fekk leen fa ndax teraange gi ngeen ma defal est comprendre nga li ma la wax. dégg naa la bu baax suba mbër moo leen ne dinaa leen seeti ak muy sawar a ñëw ndax teraanga gii ah ngeen njëkkee ko si man comme li may wax chaque jour kon bu fekkoon lamb ji compo la bokkuma si dix premiers yi nekkul suma yaa fuus nag waaye yàlla mooy dogal. ah yéen lu jóg ngeen tourné ka ak man bàyyi kat man lu may def lu dul sant leen di gërëm tey ñaan borom sit bi may ñaanal borom wasaare wasaare ngi États-Unis wasaare ngi France wasaare ngi fépp ah ma leen di ñaanal kat wax dëgg yàlla ak bu mu dem ba màgg ba doon canal mais man mii sax man directeur wasaare daf ma war a jël ma lay accompagner. kon nga gis lu lu mel ne Kaani Tamba. moo bëgg nga jël Kara Dollé mu lay accompagner man kër gu ma fëgg ñu ubbil kon wasaare bu boobaa dina mel ne kaani tëmbal barki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp. mais dañoo gisoon nga jub ci combat foo toll ci sa combat bi. non xam nga ne euh, chauffeur bu ut permis bu ne dawal lay ñaan am dët waaye mbër mu ut licence bu ne bëri bëgg kon promoteur bi suma ma wooyee ne ma damaa bëgg sa combat combat bi jafe woon lool si man mu dem woo sama ménagère mu coupé ko di ko dugal ay li sunuwaar mu saraxu pour mu pour mu bëreel ko mu joxoon ma avance non joxuma woon mu ne ma tant que waxaale nañ dinaa la jox loo xam ne da nga koy téye pour ñu wane ne am nga combat mu joxoon ma cent cinquante mille na ma téye ko sa loxo ma téye cent cinquante mille yi novembre la ma ko jox xanaa novembre ba tey ma ne ko koy tëgg mu ne ma janvier ma ne ko mënu ma bëre janvier mu ne ma naa ko teg février février yi jot tëgg ko mu ne ma naa ko yóbbu avril ma ne ko du ma bëree Thiès du ma bëree Diourbel lu ma bëree Tëngéej Iba Mar laay bëree war arène nationale mu ne ma si ñaari escombe stade laa koy tëggee ma ne ko may naa la avril du ma ko romb kon xanaa bu demee bay jàpp datam dina ma woo ma karaakat damaa bëgg a jàpp dat waaye su ma ñaanee ma may ko mu ñaanaan ma avril ma may ko te ba may jël dama ne ko nii xamoo arène bi kañ ubbi mu ne ma du ma romb ak avril kon bu ma jéggee dégg mu ne avril mai juin le 20 juin te tey dégg naa ci si si ay ñu nit ñu ne ut na estatu Tëngéej ba bëgg fa yóbbu làmb ji contrat ndax suma contrat man ak moom li ñu waxoon non man na sëkk yoreetuma ko contrat wax dëgg yàlla yeneen bi jotoon ngeen avance bi bi mu la koy jox jotoon ngeen ko signé wala dafa dagoon njëkk. non man ak moom signé wuñu signé wul ak sama manager dafa wax ak sama manager génneel ko fooy ne ko signé sama manager ne ko CNG ubbeegul avance ñëwagul amagoo daj jox góoma lenn lu may signé. yaa déglu maa ngi moom moom dara tënku ma signé wuñu si dara si dara si dara. kon oh, kaay toog da ngay sànni kàddu après. kon kon kon su ma déggee. yaram kii nga après nga ñëw. kon su ma su ma déggee wax ji daal mooy sa combat yow ak Mama Yaa taxawul. non Mama Yaa yorul maag euh, amatuñu contrat. li ma waxoon. déjà Dakar lañu waxoon. nee na lamb ji tëngeej la décembre ok. lu tax nga bañ a ba tëngeej. non maanaam tey man sama capacité. arène nationale nekk fii euh, nu mu tuddati Iba Mar nekk fii lu may def tëngeej ci ay statu benn tribune xeebalu ma leen ko. est-ce que nekkul Mama dëkk Tëngéej moo tax nga bañ dem foofu. non non kon man man bëri ji naa Tëngéej kon kon kon du bëre ji Dakar ak Gris Bordeaux Modou la dégg du ko fekki parcelle Eumeu Sène du fekki du fekki kii Pikine. lu tax bañ a bëre ji tënk. non maanaam loolu contrat yi ñu signé man ak moom lu ñu win wax ba mu leer man ak moom la si gémmiñ ak gémmiñ koo xam ne nee nga man yoruma xaalis dañoo nekk suma ginnaaw di ma tëggal di ma tëggloo làmb mais boo yoru nga bàyyi ba yor cent cinquante mille novembre ba tey. nga jàppaat ay derrière ay at yu bëri si ginnaaw ay weer yu bëri xalaatal cent cinquante mille nga bëgg ma see yóbbu dix mois calculer novembre ba tey chaque jour juróom fukk calculer ma ko ba tey kon xaalis bi jeex na sëñ bi am de après yow nga bëgg ñu bëree lamb ji ñun duñ ci tooñ kenn waaye kenn duñu tooñ non man xalaatuma loolu mais mais mais fi mu toll nii su dul moom est-ce que am na beneen promoteur boo xamante ni moo ngi dox combat bi man du ma bëri na Mama Yaa bu tëggul suñu combat keneen tëggu ko fay ñu lu ñu fayul. mais tamit man dama lay wax am na ay combat yi taxaw Tonnerre moo kii taxaw na. mobile mobile. Lac Rose neex taxaw na. Jordan ak. Euh, Jordan doomu Dangu. taxaw na. moo geet ba mu fi jëlee xaalis sànni ko si suuf man maa njëkk a nekk mbër mi génn wax ko ne rafetlu wu ma lim xaalis kenn du ko sànni si suuf kon moom dafa defoon négatif ma wax ko kon nit ki bu defee lu bon boo ko waxee bu defee lu baax amoo droit wax ko kon <coughs> pardon su nekkee bitim réew ah yaakaar naa ne message bi ma ko tàllaloon ne ko boo dee may mbër xaalis waroo kaa sànni si suuf mu koy formé ne ku lay tarbiyu loolu baaxul kon moom bu demee ba jël ay mbër woo leen jox leen ay avance ma dégg mu ne day génne xaalis boo xam ne du jël ay cent millions di ko jox benn mbër day jël xaalis partagé ko mbëri ndaw yi dama nga xamal na ko lu muy def rafet na. ndax nit bu defee lu bon nga wax ko bu defee lu baax da nga koy wax lii mu man mi su ma woowee jox ma sama jox ma avance ndax combat lag kii ama neex la taxawal te man maak ama neex maak Lac ñoo bokk faas ama neex rakku magu maama yàlla pourquoi maak moom combat boobu mënuñu see jël spécial. man li woon ama neex mu jëm ka faj fii Lac Rose la woon fee mu jëm kaa faj mu nekk petit camp 2-2 mu ñu defaral yaa ama neex defar Lac Rose defaral ama neex lamb ji jeex. kon yow daal suma ma déggee wax ji daal mooy danga nga bëgg appel kii di Mo Gates na ko mu taxawal combat bi. dugal ko ci mu nekk spécial. bu dul moom man ku ma xool xam ne làmb yu fi yëg nga taxaw yëpp damaa bëri ci combat yooyu. dama ne la gasoo mu ngi fi ñëpp a ngi fi ku taxawal suma komba mu jël ay dama ne la. Euh, euh, ba mu defee naa ko su dul noonu dama ko wax mu dégg kon bu jëlaatee ay xaas séddale ko mbëru Sénégal yi. ñuy bëre kon mu ngi def lu baax ndax bu ko neexoon mu jël sam def ko feneen eggale saani bi sama fu gars yi di forte bu boobaa damay génnaat tamit di ko dalaat di wax ay wax yu gën a garaaw yi ma doon wax. waaye tant tamit mu ngi jël xaalis di ko jox mbir ñuy liggéey dañ koy encouragé ndax ñun ay mbër lañ ah. mais noo gisee combat yi nga xamante ni jot na fee taxaw ma njëkkee ko ci Bombardier ak Balla Gaye. Bombardier Balla Gaye lamb mag la lamb ju neex la Bombardier champion la xam nga marqué empreinte am si lamb ji waaye tamit wax dëgg yàlla yéen bi Balla Gaye xam nga dafa nekk ndaanan dafa nekk ndaanan gu fàq tëdd loo xam ne lu jàpp moo ko mën lu mu jàpp rek moo ko mën waaw maa ngi xam ne lamb jooju noonu dina métti trop trop trop trop trop trop nag. est-ce que est bu njëkk ba na mu yombee woon gaaw est-ce que bii dina ko mel. non bee Balla Gaye wul woon dafa nekkoon si ay tolof tolof Bombardier ñëw na indi bërëb doole ju bëri xam nga combat bi di am neex Balla Gaye indi doole Bombardier indi doole ñoom ñaar yu bëre waaye bëre bi xam si lu muy jeexee ci wëndeelu bët def ay business yaa ma gën a xam ay mbaskaat api mën na ci ama ah. kan mooy def lool non Balla Gaye mën na bëtt Bombardier wër ko ndomba daan ko mbaamu faq ko mbas ko mu rëpp waaye Bombardier tamit Balla Gaye bu dëggalee boppam Bombardier mën na ko dóor mu daanu làmb la ndax Bombardier dafa am force frappe. te noonu la demee. mais loolu combat boobu taxaw ñu dawal promo bi dawalagul sax ñu dégg ki nga xamante ni mooy Boy Niang ak Balla naka nga gisee loolu mbër jël ñaari avance. waaw mais mbër pourquoi mbër war mbër wara jël dix avance signé ko kon signé ko ak promoteur ne ne ñaan wër rek tey bëre sport la. pourquoi Ligue des champions ngay signé ak trente match di ko football boo footballee bii football fii bi football bi mais sëñ bi nag nit day évoluer lamb ji xaalis moo koy def. te xaalis la ñuy wut lii day wane ne lamb ji instant yii nii kenn dootul toog naan combat bi combat bi ba Balla Gaye da lay leer na bu jugee fii mu ngi fële Ligue des champions ay milliards la ñuy fay jour bu nekk liñ koy fay mën na jënd promoteur yeeg mbëri waaye dañuy fubal match bi fubal match bi fubal match bi noonu la mën a deme Balla booy Boy Niang noo ko gisee. lamb ji doy waar la man damay conseil Boy Niang dama koy xamal ne ko lamb ji moo si ëpp sens. moom Boy Niang. waaw xam nga lu mu ci ëppee sens tey Boy Niang bu bëreeg Tapha Tine même bu ko Tapha Tine am na beneen combat boo xam ne nii ki muy bëreel moo xaw a ëpp niveau Tapha Tine du ci perte. wala xamoo li ma la wax. ngay dégg bu baax. a jot Balla Gaye moom day daa mën moom bu ko yàlla mayee defee tamit day jot Balla Gaye ndax jël na avance ba pare kon kan moo ci am bénéfice. Boy bu daanee bombardier tamit. mënatul a ba ba Balla Gaye bu daane bombardier booy ñaa sax amee defet Balla Gaye mënut a jël ku ko ku ndax xas na ko ba signé. Balla Gaye même bu amoon defet booy ñaa am defet sax Balla moo ëpp def moo ëpp niveau booy ñaa kon kañ combat booy ñaa moo si pertu su ko Balla daanee dañ naan Balla Gaye da kaa mën su daanee Balla Gaye ñu ne Balla Gaye ah, xamoon nañ ne booy beeg mën yàmbar la loolu la ñuy wax ah xale bi jëlee na ko fi moo tax ma ne moom pertu ci dara xaalisam rek la si gagné. ñu ñaan yàlla lim si gagné mu mu mu rees ko ndax mbër la ah. dafa marqué empreinte am. Euh, bu ma ñëwee ci ki nga xamante ni nii mooy Ama Baldé ak Modou Lo seen premier face to face gis nañ ko coow la ca am jotul sax àgg noo gisee boobu combat. ay ñaari xale yu am coow am ay gét am mbooloo seeni mbokk and ak ñoom noonu loolu boo ko dee def da nga ko war a waaj waajaat xanaa xamoon ne man boo nekkoon promoteur bi. damay waxaale waat ak mbëri fayaat leen ku nekk cent millions wala deux cent millions signature bi ma jaayaat bi dañ koy jënd yóbbu ko arène nationale def ko entre cinq mille def concert Wally wala Youssou Ndour après nga def signature bi loolu la nga see gagné doo ko gagné waat sax jour lambu ja sëñ bi lambu ji xaalis bi dafa war a génn mbëri dañoo war a liggéey ñun fi ñu toll nii bu fekkoon Europe la ñu ngi dawal ay ay ay ay ay ay yeneen otoot fekk ransi day xeewi ay pick-up ñu ñuy génn ay ay ay ay ay ay ay waay yaa ma gën a xam mooy loolu sama gars sama copain bi borom Turquie borom France moom mi ne jugee foofu fan yi war na maa xam nandal affaire yi ay ñu mu imposé su ma doom day Ama Baldé dafa bëgg jël roi ma wax képp kuy mbokkam na jóg su bëggee jot roi bi mu entraînement lëlu déggal ay kilifaam toog ci tànkam te mu xam ne am na komba ndax Modou du paa xale la te ñeme na entraînement mën na bëre soxor na mën na dóor Ama Baldé am na fort bu arbitre bi nee prib daanaan la na fi jugee Modou Lo bu arbitre bi nee prib daanaan la nañ suul tànk yi ba si kanam ñeme jam-jam yi jaax xam nga loolu dafa nekk si loo xam ne moom Ama Baldé comme nga teg ay ay pont ne dox leen Ama day ñëw def ful la mu dem moom loolu day ñëw moom ne la na ñemee jam-jam yi quoi dañuy nañuy taxaw si pont yi mu jam ñu ñu yëg métit bi xool xam nga def si benn cinq minutes man du ma ñëw si pont yi rek di ko dox noonu la làmb yu demee Ama Baldé su fii laa la koy waxee lépp lu muy entraînement na jéem a daan Modou si une minute. wala si nekk combat bu gaaw. combat bu gaaw waaye combat bi bu diiree bu amee une minute une minute laa la wax une minute ku tegoon xaalisam si Ama Baldé teggi ko. lu tax loolu. dama xam ne Modou Lo bu lamb ji diiree moom moom waaye si diggante une minute maanaam une minute première une seconde ba une minute bu ci jël la amee Ama mooy daan. waaye bu rombee une minute premier song bu amee Ama mën na daan bu rombee premier song ba romb deuxième song non wax dëgg yàlla xam mu Modou Lo day yóbbu ndam li que le gañ nag ku si yàlla defal ndam baax na. mais léegi suñ jógee ci loolu ñu ñëw ci làmb ji gis nañ léegi ni muy déroulé promoteur yi ba ki nga xamante ne mooy Bira Sène jot na woo ñi nga xamante ne ñooy promoteur yi leen ku ci jàpp date da nga joxe un million bu date ba jotee te tëgguloo nga ñàkk noo gisee loolu moom digganteem ak promoteur yi. waaw xam promoteur dañoo bëri ay dóorkat am na ay kilifa yu si nekk am ay responsable yu si nekk am na ñoo xam ne ku ci mel ne ay ñoom Père Gasson Pape Dou Fall Dieye Fallou Ndiaye copain Modou Lo bi nekk parcelle Prince Prince ñoo yàgg nañoo tëgg làmb ak taalibi Cheikh Béthio Thioune bi waaye làmb ñi ko bëgg a yàq mooy comme exemple sa ootewu ma mooy comme genre fay tëgg sunu lamb yi ñii dañoo waroon commencé ay lamb baas lamb mbedd wala ñu dem ba ci àll bi tëgg fa lambu entraîné waaye mënoo ñëw di liggéey benn liggéey boo xam ne attanul lamb nga bëgg a ñëw sonal nit ci ay lamb kon da ngay sonal nit ñi man li promoteur bi wax kii li président CNG bi wax naa ci cent un milliard pour cent. képp kuy tëgg ci làmbu bàyyi fa na gars yi dañuy tëgg làmbu dem yëgal ko mu jox leen un million dem yëgal kay mu jox leen deux millions dem yëgal kay mu jox leen trois millions ñu jékki-jékki ji yàqu na. loolu tamit bu ko mën a bu ko promoteur bi def bu ko kii defee nu mu tuddati. Bira seen defee def na lu ko war. ànd bu baax ndax sunu sunu arrangement la ñun. te mbër yaa ngi ñëw dañuy tëgg làmb de dekki làmb mbëri. dañuy tëgg làmb. bu baax a baax président Gris Bordeaux si kàttanu yàlla nañ ko ñaanal rek ndax mbëri dañoo bëgg tëgg làmb de te ñu ngi tëkkoon si biir boo moytuwul bu ñu waree si kàttanu yàlla président wax ak ñu ñu bëre de. loolu moom dina doy waa di mbër tëgg boppam. maa la dee loolu. association lutteur en activité dañu ut licence ku ñu tëgga ñu tëggal suñu bopp ku ñu tëggal ñu tëggal suñu bopp. yee. xanaa boobaa nag cachet yi dina wàññeeku. waaw ndax suñu xaalis la ndax ñu ñoo ciy feebar di ci faju bu bu neexee sax ñu bëree gratuit ñun ñooy feebar. mbër yi moom baaxewuñ ñun non non ndax suñu xaalis ñu ñooy. bëre ci gratuite yow bu ñu doon kaay bëre ci di nga ñëw. ah kaay bëre ci gratuite nga feebar ñu feebar ñu faj ci kenn nga ta ñu jox la si nit feebar si ñu faj ko ku ci mel ne Père Mbengue ñu jàppale ko si ëllëg man mën naa feebar ñu faj ma ci. pourquoi sunu xaalis la lu dul yàqu la pourquoi Wally sek di tëgg concert di ko may gars yi gratuite mais yow tey sentiroo leen. amul niveau tey. ankay <coughs> mais temps yi nag waxtaan yi am niveau laay waxtaan temps yi damay wax mais nag sama gars maa toog réunion man ma yor stage yu bees tàq ku ci mel ne suma grand Cheikh Fall jiite ko ak euh, suma grand doom nday Ousmane doom nday Khadim Gueye borom Turquie borom France Emma John Sina Lay ak sëñ Saliou borom jaakatu Pino ay ñoom mu Ndiaye duudu ñëpp taxaw def réunion bu mag xam nga kan laa yërëm. xamaguma ki ma war a bëreel. démb. général Malika daf ma woo dama tooy. ma ñëw mu samp ak man contact ba ma gëjee bëri yàgg na mu contact loo ma ba nii dama feebar. waaye tey dama jug dawi ji ndax suma gars yi ndax wax dëgg yàlla ñu lay tegloo oto. di la jox xaalis. John Sane John naa saa bu ma entraîné ba pare mu génn fee jëndal ma fa fexe euh, boisson bi génne e-, énergie na ma naanal. barki Seydina Mohamed waxuma ngir ay dóor barki Mohamed mu nekk suma copain nekk ku baax. yàlla moo xaw a antu rek waaye combat bi daf ma see diggoon xaalis bu beex baax a baax waaye xaalis bi nag joon maa la koy wax jox ma ko ay ginaaru korite de ndax dara nekku fi yoruma dërëm parce que Serigne Touba Mbacke. bàyyi ñu sànni ci ay kàddu ñu ñu ñu doog a tëj. waaw kontaan naa si yow. ba yàqoo làmb de wax dëgg yàlla ak yeneen bi yàqul làmb ma lay baalu bu baax a baax di baalu sa caméraman bi ah wax dëgg yàlla ak yeneen bi mooy kilifa gi waaw sëñ Basirou Abdou dinaa la ko xamal jànguma de waaye tey bu mu mënoon jàng dinaa leen tane ay wal aadiyaat dabb xan ak ay wéyli nukilik waaye damaa jàngul waaye yàlla nee na noxol bi sell rek kontaan naa si yow di ñaanal Sénégal jàmm di wax ne barki Seydina Muhammad ah dinaa jekkal sama toogaay kat tey xam ne bu benn nit sax am naa lu ko am naa ñu ma ko bëgg lenn tamit dina la ko dénk lii publicité la te fayoo fayoo ku leen may woo waa Nescafé maa ngi woo waa Nescafé ndax ci dëkk bi lañ nekk di liggéey ay eh, nañ ñëw jox sponsor wasaare ndax lii bu la neexoon tey mën na leen génne leen ko ngeen bañ formance bi maa ngi leen di woo ñëw sponsor wasaare ndax yéen koo leen mikro baaxul bër bi jadida la lii boo ko ci ginaar mu neex boo ko bër boo ko defee mu neex nga def ko ci beñe mu neex maa ngi leen di woo. te laax sax day ba sànni ci yi. balaa ñu leen di. dawlin leen di publicité na ñu jël. man ak yow nga xool. ma moom xam nga ne lii mu ngi jugee ba màkk wala arabi sawri ca biir a lii lii ma jox la si benn secret boo dee xëdd boo dee xëdd maanaam. tàndarma bi maa ngi naan marhaba xam nga marhaba kon marhaba li lan la danu laa ilaha illallah balaa ngay xam ne doon loo neex sa baay dee bàyyi fi alal gu bëri bu sa xamal doo donoo mooy donnu rek waaye bu sa laamin ki ko ki ko nit bind daa juum laamin bay takk moo tax mu duddee ko danoo ay lii ndeysaan su ma eggee ba jël garaax tëmbal ko ci barki maam Cheikh Ibrahima Fall lépp lu ma ci naan directeur wasaare lamb <laughs> fi mu toog la yëg di nekk di yëg neexaay bi barki maam Cheikh Ibrahima Fall ma koy ñaan meew mi xam nga ne meew ñuulul day weex ni meew bi weexee maa ngi koy ñaan ci barki Seydina Muhammad ci barki weeru koor gi yàlla na ko léppam weexee lii xanaa doone ma mayonnaise la de. la de. laa ilaaha illallah. waaw ci nga gën a. nag juum ngeen. daa waroon an poobar. nga lii boo suyee poobar boo suyee poobar. mais ñii sax duñ leen may bës nañ ñëw. nañ ñëw ñu toj fii. waa lii lan la. mooy sekk couscous marocain. waaw xam nga lii lan la may fàttali. bu mairie di ñoo ko nga taxaw seen wet di leen li maa ci xam maa ci mën a bind livre mairie dañuy lekk nii nga leen di xoolee xoole nii ba maire bi jékki-jékki na la sama doom eh waay kaay lekk. paysa nga xaw a dugal ñaari baaraam xool gisi benn genre dinaanke yi nga nga bu ñu ñibbee dañ lay saagawaale barki maam Seera ma faal. suukar moom dañuy sant waa compagnie sucrière du noonu la ma leen wax ñu dugal seen loxo ci làmb ji. boo waa wasaare te lamb ji nag du ma si lamb rek football bi Macky Sall bu bëggee mu dox na wax waa société bu mag bu nekk na jël ay c jël benn écurie sponsor te lamb ji nañ ci boole mbër yu ndaw yi président CNG daan na def mbër bu ndaw bu bëre bu nekk mu dagg sax xaalis cinquante mille denc ko banque bis booy bàyyi bëre soo amee deux cent cinquante mille wala benn trois cent mille ñu wut luñ la lebal tegal la ko si jënd la ko fas mbaa saret mbaa oto mbaa kër ndax sama jeex si dëkk bi ah tey dafa laa yem sant naa Emma gërëm ko sant suma yaay sant suma papa sant Pa falu seen sant naa ñëpp wax dëgg yàlla yéen bu kontaan naa bu baax a baax santi sama nijaay Baas sant suma rakk Souleymane sant naa Père Malick Cissé sant Mamour doomu fas sant naa Sénégal ñëpp di wax ne subhaana rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin jërëjëf Serigne Touba <laughs> waaye ñu ngi leen di fay waa Wassare TV tey ñu ñëw seet si ki nga xamante ni mooy Kara Dollé muy entraîné fi nga xamante ni mooy say salle mooy salle musculation bi lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw d'abord maa ngi nuyu Sénégal nuyu ñëpp monde entier di profité si weeru Ramadan bi ak suñ mbokku chrétiens yi suñu peesoo seen seen kii bi kere bi. kon maa ngi ñaan Sénégal jàmm yàgg bi bu weesoo foofu Kara moom fii Saalam la yàlla ma tiim si koor laa nekk. fee la ma fekk ma tëdd léegi même pas mooy de dix minutes la ma gis na ma John dama bëgg a tourner benn émission ma ne ko non fii sa kër la kon demal parce que li muy def kenn ko jàngal fii dafa maîtriser salle bi quoi waaw a beaucoup de leaders yi fii entraîné mais moom dafa maîtriser salle bi. kon donc sànq si may mën a développer si côté entraînement parce que nit dañ naan doo tagg sa bopp mais Kara koo xool xam ne dépassé na cent vingt kilos kon donc gars yi dañuy jaawale masse musculaire ak masse graisseuse soo amee graisse ñu ne amoo doole loolu si si si compliance bi si bind bi la quoi boo xoolee cinquante kilos vivacité bu mun a am ak rapidité bu mun a am cent vingt ko am doole ak kii te lu si ëpp solo si àdduna mooy doole. tey làmb li ci ëpp solo boo leen jàppante tey mooy ëpp puissance ku ëpp doole force intérieure kon Kara ko am man ni muy développé du nekkul dara moo tax may wax mais koy yàlla lafal cet bu dee physique am na ko bu dee doole am na ko kon donc gën a jóob liggéey ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di gërëm gars yi kaboyam yi koy jàppale waaw aussi tamit lu am na solo gars yi reconnaissant lañ parce bu ñëwee duñ ko bàyyi muy dem ak boppam am na ay encadreur yu baax kon donc loolu dafa doon ci la nga xam ne day yokk l'esprit saint mbër bi ak corps saint bi xel bu sell yaram bu sell kon donc maa leen gërëm waaw bëgg naa ñëpp nag. ba may bëri mbapat kii sama premier combat mbapat ba tey moo ku fekkee moo ma doon toogal jubukaay yàgg naa dem mbapat su may bëri ji du ma yóbbu ndox moom ma bind si suuf rek jox ma ne ma xëppoo dem bëri ji ma jël ci ay nag ak lépp kii xam na sama lépp kii. lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw salaamaaleykum dama leen di siyaare yéen waa wasaare ma bëriwul sax lu may génn ci ay écran nii wala may wax ci rajo parce que sama yooyu moom jubluwuma ko quoi mais samp yooyu moom bu amee jataay bu mel nii moom foog ñu génn li ci xool yi mën ko wax xëy na làmb moo tërë di rek làmb moo tërë di rek ba ba tax sax mu demee nii mais kon heure bi fa ñuy dégg ñoom Ama Baldé ñoom Balla Gaye fa lañ koy dégg yoonu làmb bu baax laa moom li may wax ni lu leer. lan moo ko tee yegg foofu. non xëy na xam nga euh, sport yëpp ñoo mel noonu boo xoolee euh, ci équipe néewtaan ñun géej waay lañ juddoo ñi dàqoon na football foofu réussir uñ ci ñi ci am sens rek ñooy dem affaire dafa day toll foo xam te ni sens moo la ciy dimbali rek. mais ci mbapatam fii Kër Masar nga xam Kër Masar yaa ko suivre fii Kër Masar yaakaar naa ku ko teewoon fii ci territoire Kër Masar saar man man boo gis moo ko fi ñun fi doon coow ci ay jamonoom yëpp tër na dëgg lu ci mës a teg jëloon mais amaana des fois di nga toll foo ni di nekk ci ay tolof tolof yoo doo xam yow mi koy dund sax doo xam loolu bu demee ba am combat ba dugg ci stade bi fi ku ci mel ni ñun ñu ko seeqe muy man ak sama copain Laye Ndiaye ak ñoom Doudou dañ ko teg ci loxo jon mi ak Emma bu ñëwee bu jon jàppee kay saa di ko teg lu metti day tërën bay bëgg a ñu ne ko non doo bàyyi vraiment xon na saf parce que dañoo bëgg bu demaatee ba am combat bu futee ñu xam ne saa yi mi lalu bi mu lalu woon kat yaa quelque chose quoi parce que Balla tolloon na ci guddi yàqu man moom rek laa moom rek mel nu ko ne mais ba ba gars yi lal ko ñoom Aziz Ndiaye ba mu ñëwaatee benn changement lañ gis dëgg la nag ñun meluñu comme ñoom Aziz Ndiaye parce que ñoo ñëpp moyen ëpp connaissance boo xamante ni den ci mën a ànd ak moom pousser ko teg ko doole parce que bu ñu ko tegee doole teg suñu teg doole suñu bopp parce que yaayam day ñëw ni ma sa loxo laa ko teg seen loxo laa ko teg su baaxee yow la su bonee yow la yooyu seen kër su ma fa yow mii tey boo fa bëggoon jabar su ma may su la fa mayee jabar yaayam di ki teg baat moom di ki teg baat dinaa la gis man cër bu ma am kon kon maanaam yaatu na dafa dem voyage dafa jóge voyage kii dañoo dund lu nekk kii maanaam kii ko may soxna li lay wan ne sunu gaañan maa moom dafa dëggu jabaram bi mu takk musu kaa gis xamu ko maa jàpp loxoom yóbbu ko ne damaa bëgg nga takk kii comme si weeru koor nii dama ko wax rek mu dugg takk ko dama ko wax mu dem fa tey ba ñuy génn na ma kalaa may takk kii mu takk ko ñu jógee foofu noonu muy dem France barke Seydina Muhammad ñëw na ma su ma jógee France dama lay defar surprise mu jugee France billahi wallahi wa taala ne ma dama dugg sama gétt nga tekki benn laa yóbbu ko barke Serigne Touba ma tekki ko laay njaay ma lay taxaw jël suma suma copain la may ma laadum bu jigéen moom mu may ma laadum bu góor barki maam Cheikh Ibrahima Fall di ma jàngal di ma jàngal am fukk lekk juróom lii ma lay wax ne laa bëgg nga génneel ma ko ñu tàggatoo man pare naa mooy dama lay ñaan ngir yàlla ngi génneel ma lii rek ngir jëmmi Serigne Touba. maa ngi nuyu waa 100 pour cent Kër Massar ndax wax dëgg yàlla dañoo taxaw pour jàppale ma maa ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxo king ak baara lii nag boo ma ko génnelee ma sant la gërëm la maa ngi nuyu king ak soxnaam gis nañ jàppale bi ak waa cent pour cent Kër Massar yëpp di ñaanal Mamour suma rak suma doom suma xarit suma lépp ndam jërëjëf. jërëjëf gis ngeen nii lay demee ci wasaare làmb tey ñu ñëwoon seet si ki nga xamante ni mooy Kara Dollé ndax dafa bokk koo xamante ni fuñ ko fëggee. mënuñu yegg si leen des fois ñëw sax duñ ko tàggu te teewul euh, li ñu bëgg dañu koy defal boo tax na tey nag ñu seet si woon ko fi andil ko li nga xamante ni xeeb nañ ko lool xeeb nañ ko lool xeeb nañ ko lool di si gërëm ñi nga xamante ni ñooñu ci jàppale bu baax a baax muy euh, sëñ Bas maa ngi koy jàppale maa ngi koy gërëm bu baax a baax ndax bu affaire yi moom la di di gërëm ki nga xamante ni mooy baabu le DG moom seetaanuñu benn yoon ñu di ko wax euh, kontaan nañ kontaan nañ bu baax jërë ngeen jëf ba beneen yoon